lu jëm ci wàllum yàkkataan beek lii di fitnaal jigéen ñi lu ne xuus la ca bitik bu yore wàllum droit ca Ziguinchor ginnaaw bi ñu jote lu toll si ñeenti téeméeri kaa ak fukk juróom jëm ci ay plainte ci atum 2018 bu ñu sukkandikoo ci coordonnatrice bi jot nañu fi lu toll si ñeenti téeméeri mbir ak fukk juróom yépp jëm ci fànn boobee daal nañu itam recensé ay siège yu tàggoo ci anam bu ak yoon lu ñeel itam jafe-jafe gu am ci wàllum suuf waaye itam ba tey ci wàllum liggéey gi ay mbiru yakatan ak it fitnaal yu ñuy fitnaal yenn ci jigen ci bir kër yi waye nak li gëna bari ci kay ñu jot ci ñaari ponk yoy la jëm muy walum yakatan bi ak li di fitnal jigen yi ñu fekk ko ci birom ba nek ci siège bu fédération bi ëmb kurel bi ëmb jigen ya ci jigen Ziguinchor mu di sax fi ñu amal li di boutique bi ñel walum droit bi ci région bu Ziguinchor ndeya su bi koli di ñu génneel document yu dul jeex jigen Ziguinchor boutique bi yoré walum droit danaka offre yu bëri yu jëm ci walum service lay jaglél ay client Je reconnais ko ci ay consultation juridique yo xamné du andak droit de la famille ak itam lu soxal li di état civil ba mariage succession walum liguey ak lu sécurité sociale